xar bu baax nga bëgg xoolal fu la neex ak xar bu la neex waaw ñëw toog ñëw xaar xaar ma jël sama chérie toogal toogal toogal ndeysaan maa ngi sant yàlla bu baax yéen a ci jàmm tabaar alhamdulilah tabaar alhamdulilah alhamdulilah bi la bi ma duggee. Ah. xam naa ndax xam nga ni dëkk bi yëpp ma fiy jaay xar fu mu yi nekk dëkk yëpp maa leen di jaay xar. déedéet kay maay jaay Babacar mel nga xar. Pape Diouf maire de Yara maa koy jaay xar. Euh, nu koy jaay xar. Euh, euh, Boga maa koy jaay xar ñooñu ñëpp. gaa ñooñu ak autorité yooyu jaay xar. déedéet wallaay wallaay kon man ma. te nag yoruma xaru coono. xaru 800000 600000 xar moom moom moom man dama bëgg genre xar bu ci gën ndaw moom mi ngi jar 450000 déedéet kay maa la ko wax mais c'est normal parce que yow say xar dafa baax gétt gii moom ku fi ñëw hmm. macha allah sa bamba day maase lii kay sa tabaski day ëpp maa la ko wax yow nag lu doon sa tànk man dama xar laa bëggoon xar waaw parce que yow xam nga ne instant bi ñëpp xar loolu la ñuy wax ndeysaan loolu dëgg la yaa comprendre si si période tabaski bii ñu jëm nii dama bëgg xar bu baax ma romb fii rek gis sa xarit rek mën daal mel na ñu ne ma sama xar fii lay génnee. yow sa xar fii lay génnee. Ah. loolu jar te wax ñaari yoon juumoo yegg si nga fi nga war a yegg si ndax gétt gi maa fi mën maa fi mën ci gétt yi. loolu dafa ma limal yëpp que yaa leen maa leen ma laaj <laughs> ak kenn. ah.

barki Rasulullah yow déet bul def loolu. mais boo ko defee doo ko réccu de. billaay. parce que fii Sénégal la nga xam ne teraanga teraanga koy sax. wuy sama yow laa doon wër. xar mi yaa moom naa la ci monsieur la nga xamante ne. ah doo too ko réccu. xar mi taxi laa la jëlal topp. waay topp waay. waay yow maa la jëlal taxi. taxi. asu maa sonnoo ci yoon bi mukk yow pour ñëw ci yow hmm. duma mës a sonn waa loolu moom dafa leer te lu ko jara hmm? jar danga ma ko jaral nag de mais la nga ma ko jaral ëpp parce que la ma defal keroog dama choqué man musuma xalaat ni que ni nit dina yëkkati xar may ma ko gratuitement ah. ak ni eh. réew mi fi réew toll nii xaalis amul dara amul <laughs> nga yëkkati sa xar bu toll ne Bombardier jox ma ko non mais dama choqué asu boo ma ne woon indil jumaa ji sax ma indil la ko seen kër gi loolu de boobu ma ne woon indil ma Moussa Ndiaye ma tegal la ko fii mais dama kontaan billaay saxar bi waxatuma la dara mais uh-huh. duuf na rëy na ga amul amul benn souci ba ma koy mooy nga tax loolu mm. dafa am solo éleveur dafa war a am yërmande ci jur gi muy yor xam nga tax man samay xar duma leen jox domodaa bu yàqu mm. du ma leen jox ceeb bu fanaan li ma leen dundale mooy lu normal di paas bu baax yaa ngi dégg bokkuma feeñ na ci moom non

yow naka nga mën a dundee ci réew mi te xaw ma la woon. maa ngi fi sax de. gërti gërti yi rek ma jàpp. billaay mais ba ma dajeeg yow. laa soog a xam ne waajaa ngi. asu neewoon naa la. la dernière fois bu ma la jàppee ba bàyyi. Ah. nga xam ne yàlla jugee la sant. asu nag léegi nag ma laaj ma wax la. Mm. noq ma man maa ngi nii noq ma. noq ma waaw noq ma. xam naa ne sa yaram koy soxla. instant bi te da koy laaj. léegi danga may may tuuti ma dem ci biir te ñëw. commencé sa way baax. Ah, xam nga lan laa bëggoon xam nga li tubaab naan ferme tes yeux. tëjal say bët. ma simil. non dama ni nga tëj say bët. ah gëmm naa asuba gëmm gi doo ma rey. ah i alhamdulilahi rabbil alamin kon général dem na waay cëy xool ko ma ngi nelaw cëy sama waa ji kontaan naa si moom de xool ko daa sonn nag ngaala ngaala ngaala sonn sonn nga moom xool ngaala ngaala man la de xam naa ni sonn nga vrai jàmbaar nga waay waay waay. kon da jaay général bi man yàqaroon naa ne ju jug samay loxo. dinaa lis pour cent. 12 yëpp dajale ko lépp mën mën nga ko jël léegi loolu du problème euh, dafa di sama sama sama ma sama maam rakki maamam ci jur maamam euh, sama nijaay. moom lañ ma woo léegi léegi léegi ne euh, euh, moom dafa gaañu léegi léegi sax kenn kii waaw suñu ci gaañu euh, yëkku mag lañ lay reyal. dama yow ana général ko jaay wala jaayoo. moom laa lay expliqué nii yëkk ñu rayal ko sama nijaay moom la ñu ray ci ci. Eh, mer. chien laa la wax nga ne lan da dangaa def da nga xam nan laa def ba am xar bi yow bu may liggéey foo nekkoon bu ma bu may liggéey foo nekkoon ab dof ngeen ma jàppee quoi yow dof nga ma jàppee yow et puis sax Assane Ousmane kaay xoolal ma kat yow kaay def sax gendarmerie laay demal yow